délégation bu am solo di waa Naxsabaniya aju ci tarixa xaadr amal nañu tukkeeb nemmeeku bu am solo ci dëkk bu tedd bii di Touba naka altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars 2022 jamonoy tisbaar ci lañuy agsi fii ci Touba ci ndigalal sëriñ bi ñu dalal leen ci kër sëriñ Touba gi nekk ci jumaa ji tatagal leen berndel leen gannaaw bi ñu jullee dallu ay takkusaan ci la délégation boobu wéyal tukkeeb nemmeekoom dem nag seeti xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci daaru tanzil gannaaw ba ñu àggee sëriñ bi dalal leen tatagal leen ñu saafonte andil nañ ko sërice yu am solo di ay téere yoo xam ne nii ñenn ci ñoom ñoo ko taalif ci biir délégation bi sax gannaaw bi ñu ziyaare wu ne seen mbégte am na kenn ci ñoom yëkkati na ay woy yu am solo jagleel na ko kii di Serigne Mountakha Mbacké ginnaaw joxalante ay kàddu diggante gan ñi ak ki nga xam ne ni moo leen dalal di Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu ñaanal leen ci njeexit gi nag ñi nga xam ne ni ñoo di délégation bi wane nañ seen mbégte bu baax a baax ci tukkeeb nemmeeku bu am solo bi nga xam ne nii def nañ ko ci góor yàlla gi ci seen i biir kàddu sax ñu ngi fësal naan yeneeni tànki jéego yi nga xam ne nii fas nañ ko yéene dox si fii ci Touba tukki bi kat du yem dong ci ñoom waaye danañ ko yaatal ci mbooleem ñi nga xam ne ni dañoo aju ci tarixa bi ci fàttali rek tarixa bi di Naxsabaniya te ki jiite délégation bu am solo bi de di Cheikh Omar Rajab Dib waajuram sosoon tarixa bi ñu ngi fasantikoo ci ay réew yu am solo délégation bi nag bokkoon na ci ñi nga xam ne ni bàyyeekoo nañ Soudan Turquie États-Unis France Ghana ak yeneen yeneeni réew yoo xamante ni jamono yi tarixa ba ña nga fa lii nag di tukkeeb nemmeeku bu njëkk bi nga xam ne ni amal nañ ko ci dëkk bu tedd bi di Touba ci kanam xalif général al des Mourides Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké